dóor waaw waaw euh, di wax ne Allô Sénégal dama koy seetaan toujours ci YouTube waaw euh, di leen euh, féliciter ak di rafetlu seen liggéey parce que yu bari yéen a ñu ciy dimbale ñun waa diaspora bi dëgg la dëgg la waaw suñu ko raté aussi dañuy mhm. dugg YouTube pour mhm. falaw Allô Sénégal est-ce waaw yal na leen yàlla yàggal ci liggéey bi sàmm leen aar leen. amiin amiin amiin léegi. ñaar la waaw. go demal. ci Serigne As ci Serigne As lañ doon wax. loo xam ci waaw si moom li ñu ci wax li ñu ci mën a wax bari na. waaw. waaw da xam naa ne du xaj ci benn émission mais damay wax ne euh, ñun waa bitim réew. waaw. li ñuy dañu yàgg dund yu metti mhm. ku nekk da ngay dugg maay def lii maay gis lii maay def lële waaye dama mën a jàpp ne Serigne As moom li mu fi dala wax ci li ma commencé seetaan mhm. xëy na branché wu ma woon mais bi ma commencé di sëriñ di di seetaan sëriñ bi benn tey waaw gis naa ne du ci moroomu kenn waaw xam nga affaire bi tamit dañ koy wax amul raay raayal. dañuy wax ñun ñëpp ay doomu sénégalais dëgg dëgg la yaay booy. waaw dañuy bañ a raay raayal mbir mi comme ni euh, suñu borom bi tànnee Seydina Mohamed jiital ko ne moo fi gën. Mhm. waaw dañuy nangu aussi loolu parce que mhm. ñun yàgg nañu fay mhm, yàgg nañu joxe xaalis yàgg nañ di woote da ngay woote fii ñu digal sarax bi ak bii doo gis dara ñenn ñi dañuy woote sax ñu ne dañ lay seetal après ñu éliminer seen téléphone yi dootoo leen dégg wala ñu bloqué la. waaw waaye sëñ As moom ba mu fi dalee wax ci commencé ko ci accident yi. Mhm. ñu ciy bàyyi xel teg nañ ci suñu bët. léegi ci li ngeen jëflante. waa ci li ñu jëflante. man dam daf ma dama ko woo comme ni ma wax rek dama gis numéro am ci Allô Sénégal ma woo ko seetaan ay émission mhm. waaw waaye Euh, amoon suma doom bu feebaroon. ba jaaxaloon ma. nekkoon ci hôpital bi. Mm-hmm. Euh, xam nga nga nekk ci àll bi am doom bu nekk ci hôpital dafa dafa daw yaram dafa raglu. waaw. doo gis ku la dimbale bi ma ne léegi sës naa ku ne woon naa ko naa woo Serigne As Baxam bi ma ko oowee mu xool wax ma lu leer naññ. ne ma dinaa ci taxaw incha allah dina génn ci hôpital bi ma <clears throat> nekk ah. kaa bi garaaw na de. moo ne ma lu mu garaaw garaaw dina génn ci hôpital. oh incha allah ci kàttanu yàlla. Mm-hmm. macha allah xale bi génn na delluwaat na ci ay activité oh. <laughs> waaw lii moom mën maa ko mën a seede Serigne As joxuma ñaari dërëm sexaluma suukar. Mm-hmm. waaw dafa def ma gis. Mm-hmm. suma doom génn na macha allah ci hôpital bi. mi ngi doxi ay soxlaam mel ni na comme dara jotu ko woon. Oh. waaw ku mel noonu nag ñu ñii la ñu soxla parce que dañoo sori mhm. waaw sëriñ As moom macha allah bari na jàmm fonk na nit te dëgg-dëgg li may wax dama ko tibee ci suma xool mhm. waaw euh, vraiment problème daal boo ko amee woo ko dina ci taxaw ndeysaan waaw lii moom mën maa koy seede ndax dama ko dund ak moom sonaluma nag ci benn dërëm bu kenn defe ne ni muy waxee nii. Ah. ay million lay laaj wala dañuy dóor. man jaar naa ci dóorkat yi ba teral ndeysaan moom dóoruma de. ndeysaan. <laughs> waaw yàlla na taxawaayam yàgg. yàlla na ko yàlla bàyyi ci kanamu njaboot gi. yàlla may ko fan bu gudd ak wér gi yàlla. xanaa war nañ ko takkal ordre de mérite nag bi ma doon wax. ah non dañ ko war a jox ordre de mérite parce que li muy def daf ko teg ci yoon. li muy def jafe naa gis dalee wax parce que damay wax il faut ñu nangu. ñi fi nekk ci ci réseaux sociaux yi di wax yëpp. ku mhm. nekk gëmal li ngay gëm man weddiwuma kenn mais moom moom man yàgg naa joow damaa yàgg a dox yàgg a dem ci sëriñ moom li mu fi dara wax boobu ba léegi kenn dindiwu ko te man mi jëgleen jëflanteeg moom xam naa ne euh, sëñ bi du ndaw am na lu ko yàlla may nañ ko ko nangul nañ ko ko nangul macha allah jërëjëf yaay kontaan nañ bu baax waaw jërë ngeen jëf yéen waa Allo Dakar ñu ngi ñaanal daal sëñ bi yàlla na yàlla yokk fanam may ko fan bu gudd ak wér gu yaram ba li muy def mu gën a continuer incha allah jërë ngeen ah, jëf waaw sëñ bi nag wax dëgg yàlla nag wax dëgg yàlla nag xanaa dañ ko jël ko jox ko réew mi nag <laughs> ah? euh, <laughs> ñu d'accord ak <laughs> ko joxee réew mi ce sera compliqué mu taxaw baax na buñ ko jox daray réew mi mu nekk jërëjëf yaay booy mu nekk benn ci témoignage yi nga xamante ni war nañ koo mën a jël ci Serigne As ndax bëri na bëri na bëri na ñoo xamante ni war nañoo mën a taxaw te bëgg nañoo taxaw seedeel li Serigne As ma wax ko encore une fois Serigne nekkalu fi benn nit nekkalu fi sénégalais yëpp nekkalu fi sénégalais yi dong ndax ba bitim réew fu ne nit ñi dañ fay ne am seeni soxla mu fajal leen ko te xëy na kii dafa baax moo tax mu génn di wax waaye Serigne As ñi mu ko defal bari na xam naa ci dara Serigne As Serigne ngay yëg ak lan ngay wax. Euh, alhamdulilahi bi nixmatu tattu mu saalixat maa ngi sant yàlla Lamine bu baax a baax a baax. ndeysaan di wax ne Lamine. Mhm. Euh, lu ma def ci réew mi. waaw lii moo ci gën a ndaw. yàlla xam na ko. Lamine doon compter li ma def ci réew mi ñu ne tey dañ koy jël ñu teg ko. Mhm. képp koo xam ne Lamine ma defal na la dara. waaw ñu ne na nga wax. lamin ragal naa ñu ñu ñu ñu ñu dem ba télévision yi. Mhm. duñ amatu luñ teg. parce que ce sont des milliers de personnes yoo xam ne. mais yéen a ngi fàttaliku naar bi rayoon nit ki. Mhm. waaw. Euh, génn daw milliardaire bi Dubaay bi. kooku tamit defoon na témoignage ci en direct. waaw ma mu def témoin moom dafa yuuxu ne day ñëw Sénégal. ndeysaan kooku ñaata centaine de millions la ma jox. Euh, Lamine. waaw euh, man da dama sant yàlla suñu borom. parce lamin yàlla bu la dimbalee. Mm. ci kaw li ngay def. Mm-hmm. waxuma dara sax mais yàlla di la may. ngay faj aajo bañ tuddee la borom di jaaba li jaaba bi doon màqaama sa jëmm mhm. ngay man di def Lamine man dama wax sax ne euh, lii nii di am nii sax mhm. dama jàpp ne commencé ku ma Lamine Lamine que man li li ne si man ak li war a li war a génn ci man pour cent sax génnul mais Serigne As waaw ah. lii dafa yéem ndax nit ku nekk ci diggante dund ak dee démb hmm. kenn yaakaaratul dara ci moom sëñ As nga génne ko fa mu ne ba jamono ji way juróom nee na mi ngi doxiwaat ay soxlaam sëñ As lii na de wax dëgg yàlla lamin man maa ko ñaan yàlla. lamin man maa wax ne yàlla képp ku ma nar a jëflanteel. waaw te sa aajo nar ta faju yàlla bu ma la dégg. laa ilaaha maay julli fajar di ñaan yàlla loolu. ne képp koo xam ne. yaa ngi ndara woo aas waaw te sa aajo yow warta faju waaw mu ne kooku yàlla bu ma gis yàlla te Lamine nee la woon. Mhm. sëñ soxla boo dégg du ñaar. Eh, sama soxla sama nopp. waaw sama bët. waaw li ma dégg. waaw lu ma lu ma xam. waaw faju yàlla moo ma ko may nañ ko nangu. sëñ bi ijaaba la nag tey frank beneen mooy man Cheikh Ass dama gisul ku ma man ci faj aajo waxuma Sénégal. Mhm. mais ci àddina bi. Euh, ndaxte boo xoolee bëri na Lamine kilifa yoo xam ne. waaw dañoo waroon faatu. allahu akbar kaa bi rek ngeen gis de. Uh-huh. Cheikh Ass ba mu yëgee ne kilifa yi dañoo war a faatu. ba ma ko yégee man asbrama ci la kilifa yi jóg. nga xar ci sa tànk dañ leen mystique baatin boo xam ne amuloon fi ñu ko mën a dindee. Lamine barki alxuraan maa dugg ci biir seeni mbir fexe ba loqati fam ne. ma génnee ko yi ci ay garabu guy yii ma génnee ko ci ay ay ay ay ay suuf yii ma génnee ko ay géej lamin ñooñu ba ma jëflante ñooñ ñooñu dee ku naroon dee. dafa oh. fomm ndax mystique la Lamine man asbrama wax naa ne heure par seconde. Uh-huh. laay faj aajo yi. la tax na uh-huh. kii ma faj ba tey laalugul garab. Uh-huh. fii ma toog laay toog ci heure ci cer ci seconde wax ak ma war a waxal. toog ci sa kurus. wallaay say di yor sa say kurus muy faju waay ay waay laalul kurus ba léegi te dem na liggéey dox soxlaam te dafa nekkoon ci diggante du nag dee. te joxoo ko benn garab mu ci waxtu. ma ne li may wax nañ ko vérifier nañ dem ci téléphone yi ñu xool ñi ma jëflanteel amul ku ma mase wax wax waxal aajo aatal laata ngay jot garab te sa aajo fajul amul loolu yàlla moo koy def ci jaamu yàlla kon dama wax ne képp koo xam ne mës nga ñëw ci asbarama gis loo xam ne njëriñ la wax ko man naa ko te boo xoolee wax dëgg yàlla gisuma ci oh. mim réew gisuma ci àddina gisuma ci maa ngi sant yàlla mm-hmm. ku mel ni man ci gaaw ci seconde tierce ci faj aajo ci ci sa àddina bi amul yàlla bindugul ku mel noonu am na sa émission ñoo xamante ni li ngay wax intéressé na leen da leen di sax jooyloo mais fi ñuy xaar li nga xamante ni moom mooy secret eh, émission Serigne As moom mooy révélation yi nga xamante ni yaa ngi koy def saa su ne réew mi di ci teg seen bët réew mi di ci gën a jaaxle di ci gën a jommi ngay def ay révélation sëñ bi révélation ñu tëj émission bi ah Lamine sëñ As euh, Lamine li ma gis si réew muy ñëw ay sëñ As ba jàmm la kilifa nguur bi weeru ci nguur gi kilifa kilifa kilifa boo xam ne maanaam politicien la politicien politicien dana weeru de weeru bi maanaam maanaam mbiram yëpp day xaweeku ba xam ne kii daal mooy loolu. ba gis nga xam ne danañ jooy oh. yaakaar kilifa goo xam ne dana weeroo nii. léppam ne fang ñëpp di ko gis. ba du lomotif. foofu laa mën sëñ As. kilifa weeru gis naa ko benn ngi noonu ñaar. ñaar. jigéen bu ñuy rey. jigéen bu ñuy rey. Lamine ma ne. fan yi moom euh, jigéen yi jaay seen bopp yi nañ moytu. ah waxoon naa ñi njaaloo nañ ko mais ñuy jaay seen bopp ci mbedd mi. waaw gis naa ku ñuy rey ba di ko sànni. sànni rey ko ba mu dee. sànni ko ñu sànni ko ci sànni ko ñu koy wër ba ñu koy mujj gis koor bi. ñuy jaay seen bopp jigéen jaay seen bopp. te ku ko ku koy rey mooy ku ko soxla di jëfandikoo moom rey ko ba mu dee mu sànni ko. léegi ngeen gis ko la mi loolu yàggatul dara léegi troisième point beneen troisième point mooy doom nit ku ëmb doom di ko nëbbu ba doom ja juddu mu génn mu jur doom ja dem di ko di ko sànni sànni doom ji doom ja dem ba feeñ ñu toogaat tiw di tiir gis wa yaay ji ko sànni woon révélation la waaye doom ñi nag malheureusement day dee. oh. oh. day dee oh ngeen gis ko ëmb doom. Euh, di ko nëbb dem sànni ko. ñu toog diitu ñu gis xale bu maanaam mu koy sànni ci foos wala dara ñu toog tiir tuuti. maanaam ñuy def enquête. di gis koor bi di jàpp koor ga. la ilaha illa allah xale yu réer yi ñëwaat na Lamine. oh dikkaat na xale yi ñu ndaw ñi à partir de 12 ans jëm suuf jigéen ñi à partir de 16 ans jëm kaw. fii ba réer yi nañ moytu. ku ci am sa doom teel teel gisaat naa ay doom ay xale yu réer. yu bëree bëri bëri viol bi ah. viol ay waay gisaat naa beneen viol bu métti. kii de viol bu méttee métti la gis naa. jigéen sax siiw ñi wala. ay waay jigéen buy génnaat sax di wax viol bi ku ko viol ku koy violé danañ ko jàpp loolu mu ngi ñëw suñ kanam. léegi mu ñëw nañu accident bu métti. ban yoon sëñ bi jege na. accident bu métti yoon baa ngi nii. Dakar Kaffrine Tamba bu métti léegi mu ñëw. léegi ay waay yoon ba am rab bu doy waar yëngalaat na léegi ngeen gis ko accident bi léegi mu ñëwaat. agression bu métti. agression bu métti mais bi yoon gars yi dañuy rëcc mais bu ñu toogee diir ñu jàpp leen beneen kilifa kilifa gi koo xool. ñaari kilifa laa wax dama def émission benn kilifa waxaat benn waaw bii beneen kilifa la. di génn bii dafa dool kilifa aada. buy génn àdduna beneen kilifa diine bu yema mbaay at beneen kilifa musicien ñett kilifa gis naa fii balaa ñuy jëm ci kanam avant Tabaski. ñu génn àdduna ñëpp danañ génn ñett la kilifa aada kilifa musicien. kilifa kilifa aada ak kilifa nguur gis naa ko. Lamine. sëñ As. politique bii ñu jëm nii. Uh-huh. ah Lamine le 23. le 23 Ousmane Sonko Adji Sarr. Ah, gisaan na affrontement mais xar suñ tànk tubéy rek yow téye course sinon musiba dina am lamin dafa teng buumba na dagg te bu daggee. waaw oh Lamine du baax sénégal yi. waaye nag yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg si si cooli cooli na rëy dana bëri euh, tuuti rek ñu toogaat affaire bi wax de tekk. mais sëñ bi loolu nga wax teng xëccoo bi. oh dana dagg li nga xamante moom moo nekk ci digg bi. day dagg. Oh. buum gi day dagg day dagg gis naa day dagg te bu daggee dana am benn parti boo xam ne du ko arrangé te eh, ñooñoom yëpp danañ danañ toog jooy ñi ñi am leen métti lool parce que mbir ma fa muy féetee maanaam victoire fa muy mujjee waaw koy gañee waaw noonu ñaan ñu leen neex parce que nañ ko xañ lépp ay waay Lamine métti na te ay waay Sénégal yi ñu bëri nañ toog di jooy affaire bi na métti lool hmm. Lamine beneen ba stop mooy mariage beneen koo xoon fecckat ba yow du man bii beneen mariage bu gaaw waxoon naa la ren année mariage la. Lamine. waaw yaay fàttali ko loolu. waaw maa koy fàttali ko xale jigéen yi waaye dafa des dafa jeexagul kii ab animateur la ak animatrice si télé takk bu gaaw. ak beneen jigéen bu siiw boo xam ne réseau yi la de. waaw ay waaye kii de moom bu amee moom ñu nit ñi dañ koy yéene nag jigéen bu jekk la wax dëgg yàlla nekk si réseau yi mu ñëpp xam ko léegi ñu takk ko léegi ñu takk ko waay waay waay TikTok bi waaye am nañ gan waay. Eh, TikTok eh, ay waay waay léegi eh. la <laughs> Lamine géej ba tey ay waay géej gi. dafa yëngu. dafa yëngu ba tey jeexagul Lamine géej gi. ay waay gisaat naa géej gi jafe-jafe. ay ay moor ñëwaat na. Hmm. Lamine ujaaj ji ah. ujaaj ji ñuy dem. dama gis miracle lii moom lu neex la miracle bu neex. buy am buy feeñ màkk ay waay ren xam la ne laa ñee. waaw ay waay sama waajur bi sa la bokk. Oh. <laughs> sama waajur bi sa la bokk. ay ren ñee naa uh-huh. ku ci am ujaat balaay dem. tàllal solo loxo booy def examen mu ñaanal. képp karaama dana feeñ kuñ ñaanal avant après da ngay gis la ngay am lu as dal asbraam dal na ujaat parce que ren yonent yàlla Muhammad da def miracle ci biir Kaaba gi. ci ren waxati naa leen lii ren ci ujaat yi ci aj Makka gi. miracle doy waar a ngi ñëw. ci Kaaba ga yonent bi dana def karaama. dana war a boppam ci biir kaaba gi loo xam ne ñëpp danañ ko gis feeñ moo tax képp kuy dem ujaaj ren góor sarax bi nag laay joxe mu leer ci ñi nga xam ne ñooy dem ujaaj yi waaw nañ fexe ñu ñu respecteel ma sarax yi maanaam mooy mooy dugub ceeb at mboq sëñ ah sëñ As non moodu moodu moodu moodu ay waay nañ nañ jóg fan yi képp ku ci liggéey yi na wut kaaraange lenn nag laa leen digal Uh-huh. ku ci ne na demandé sa waajur juróom-ñaari ndabu laax. mu génneel la ko fii ci réew mi. yee refula bi ñëwaat. Hmm. ah Lamine beneen bu doy waar ah Lamine. ci refule yi. cee lu xewoon 11 septembre ba. fan. cee tëtët ci réew kii ay waay bii naa ko côté parce que damay bay wax dëkk ñooñu dë ñooñu ci. Lamine dama gisaat lu xew loolu amaat. ci refule yi ab ab ab mbir muy feeñ. lu tremblement de terre dama jaaxal. ay waay Lamine wala ab ab xeex wala ab dara luy génn rek dal ci ab attaque wala ab terrorisme wala yooyu ay waay gisaat naa lu mel noonu yu mel noonu daal waaye loolu moo ngi ñëw ci weer bi di ñëw ay waay bu ñëwee jéey ñu bari nañ ci génn àddina si biir Afrique gis naa oh. nombre si bu bari buy génn àddina ci xeex affaire civile ci biir xeexante ay xeet xeexante ci xeet yi am ay waay loolu loolu day na waar si Afrique Lamine nga jël occidentaux yi tubaab yi fa dina am luy feeñ ñu siiw nit koo xam ne om politique la. ndeysaan mbir mu siiw boo xam ne ah dina demaat ba laalaat ñu ñun. mooy xeex lu am ci diggante. Oh. maanaam euh, xeet yi maanaam ñaaru dëkk yi. Mm-hmm. lamin lu may tëjee nag mooy. waaw eh, Lamine lii moom dafa doy moom lamin sëñ kilifa guy gaañu goo xam ne politique la. kilifa om politique buy gaañu gaañu gis naa ko. ci fan yu néew. oh homme politique buy gaañu gis naa ko mais dina joxe leçon ci yeneen politiciens yi. ah ku daan servir réewam la. laa ilaha illa allah sëriñ as barham lijaa ba borom yàlla nañu yàlla may yàlla borom dëkk bi borom jamono ji hmm. révélation yi yéeme na hmm. waaye nag lu mu ci wax hmm. xaar leen ko file ki fan ndax du wax muy laal suuf sëriñ as dama lay bàyyi nga tàggu mbokki internet yi te xam ni wax dëgg yàlla waroo di gëj a génn faw ngay génn faw ngay génn chaque jour bu ñu sañoon nga génn sarax mooy ngànnaayu jullit jullit ñëpp eh, nañuy sarax ñaanit mooy ngànnaay jullit waaw yàlla nee na ñaan leen ma may leen mm-hmm. ay waay nañuy bañ a tubaab tubaab lu tey ñaanlu waaw suuf bu sutee dañ koo jal ndeysaan nañuy ñaanlu ñaan lu baax na lu am solo la te alxuraan bàyyul dara maa falak naa fil kitaab min shay sëñ bi xam naa sama butéel bi tamit jeex na di nga ko di nga ma dolli la eh, wax dëgg yàlla Lamine nag damaa bëgg fan si yëpp maa ngi di ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm mm-hmm. tey ñoom dañ ma defal teraanga ma jël si teraanga ga ma fan si defal. Uh-huh. Lamine jox la sa korité ñoo ko assuré woon gii sa tabaski la. <laughs> sëñ As <laughs> moom sa tabaski la. sëñ As yaa ma joxoon korité joxoon ma tabaski. fan si dañ naan ma ñoo daal Lamine dañoo kontaan si moom. waaw. Euh, jox nañ la ay yére yu bëri lañ ma jox. ci tabaski bi euh, du jeex Amérique États-Unis euh, France yére yi daal dafa bëri. ñu ne waaw. kenn ki ne ma kii moom Lamine la jox ko Lamine ba Lamine sa bës a gi noonu. laa sëñ bi téemaa fuuy yéen ñëpp ngeen ñëw teralal ma waa ji. Mm-hmm. parce que vraiment li muy liggéey am na solo. ndeysaan parce que euh, allo Sénégal allo àddina la. Mm-hmm. dëggal baat bi allo Sénégal. waaw euh, baatu askan bi yëpp la baatu Sénégal la. waaw wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakaatu. jërëjëf Serigne As jërëjëf sëriñ As sama waa ji su ma ko gërëmee gërëmaale Moussa sama caméraman bu ñaawul bi nga xamante ni fu ma ñëwee Serigne As moom laay àndal. Mm-hmm. mi ngi noonu mbokki internet Allô senegal sëñ bi bég naa bégati naa géré nga korité gi géré tabaski bi mhm. waaye xam naa ni lii moo mën a génn waaye yi ngi may compal ci suuf kenn du ko wax <laughs> <laughs> mi ngi noonu mbokki internet Allô senegal ñi ngi leen di jëfal di leen jox dig daje ëllëg seen beneen émission jërë ngeen jëf ak sëriñ As Barham borom li jaab